boobee jasar saara la jotema huus wirdu sëriñ tuubaa wa doole mooy xuus di waasitir rasuli hindallahi mu jox ko seex bamba bisnillahi ngëb ko te soobu lef ma yàlla biibu doy na la sëkk daaba moo raw jéebo ngëb ko subaa ngoon soo bëggee maqaama aki njaram kerog bi subxiyaama dara jarul ci yow murit bi di ko faat xamal ni mbaanig la sëriñ bi moo ko faat jasaahu moom ma tax nu ciy salaatu xalal la si laa yaxsilul xulaatu ilaa xadiimihi alayhi llaahu salla wa sallama kama ahlaahu fi aalihi wa sahbihi wa jaala haasan nisaama xayra noorin xat halaa